yéen a ngi lu l'œil de la commune asalaamaaleykum mbokki internet yi safoo seetaan lay de la commune dal leen jàmm ci xibaar ñeel ki fi nekk député bees di euh, Pape Diop euh, féete ci fi nga xamante ni moom moo di bokk gis-gis liggéey di nag ak pàcc boo xamante ni euh, ci ku politique yi la féete moom nag coupe député gannaaw élection législative yi ñu amal ak itam yëgle li nga xam ni moo di résultat provisoire yi nit ñi doon lam-laame ne moom Pape Diop moomee dafay rek daal di dem wutali Benno Bokk Yaakaar ngir rek daal di koy coox li nga xam ni moom mooy majorité ci résultat provisoire yi ñu génn Benno Bokk Yaakaar dafay am quatre-vingt-deux euh, députés euh, kujje am lii di euh, quatre mu nekkoon moom Pape Diop Pape Djibril ak Thierno Alassane Sall ñett ya nga xamante ni daanaka ci kujje gi la ñu bokk waaye nag ñu doon laam seenu ko fété moom Pape Diop ñu tuumaloon ko ne dafay dem fété que Benno bokku Yaakaar ngir jox ko lii di majorité ca pencum ndawi réew yi mu di lu nga xamante ni bu ñu sukkandikoo ci xibaar ci source bu ñuy wax xibaaru nga xamante ni dafa jege leaderu ko bokk gis-gis liggéey boobee di Pape Diop moom moo di ni moom moomee fi nekkoon maire bu Ndakaaru xelam xalaatul sax muy dem wutali benn Bokk Yaakaar ne nag yooyu la xibaar nga xamante ni ñu ngi koy tasaare ko wasaare du euh, dëgg maanaam wérul muy rek daal di xamle ne nag nekk nëpp députéem du ci rek sukkandiku ngir daal di dem wutali lii di Benno Bokk Yaakaar mu di loo xamante ni nag mën nañ jàppandi ay leeral la yu nga xamante ni moom Pape Diop bu dee ni sax du directement la ko def waaye bu ñu sukkandikoo ci ay source daal dina koy rek fësal ne nag demul ànd ak Benno Bokk Yaakaar ngir jox ko majorité ci assemblée nationale gannaaw 82 députés yi boobu lépp parti am bu ca dolleekoo di 83 ñu jox ko majorité maanaam ëppale ku jégg foofee moom Pape Diop nag xamle na ni euh, fa mu demee woon ci élection yi ci ku jéggi la te foofee lay rek daal di des bu ñu sukkandikoo ci xibaaru moomee nga xamante ni moom moo génn xibaaru ka weddi loolee ñu ko tuumaal di dem bokki ca Benno Bokk Yaakaar. yéen a ngi teewlu l'œil de la commune.